audu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa mu boole nu jéggal sunuy jaamu yépp yàlla na ko sunu borom nangul seen mbokk Makhtar Sarr mooy nuyoog yéen Euh, di di cadre rek gannaaw bi nga xamee ni fan yi am na vidéo bu nu defoon bi ñu nekkee fële ca Maroc alhamdulilah yàlla dogal nañu siwaat ci réew mi ci jàmm fa lillaahi alhamdu wal minnatu gannaaw bi nga xamee ne nag defoon nañ vidéo boobu noonu lee doon jàngat ci xew-xew bi nga xam ne suñuy mbokki jullit ñoo ko woote woon fële ca Grand Théâtre di xew-xew boo xam ne nii bi mu weesoo wala ca même bis ba am na jàngat yu ma ci amal jàngat yi nekkoon jàngatu bëgg a bàyyiloo xel ñi nuy tere yenn yi ñun njabootu mag ñi ne lañ ñu doon tere ña nga cey sóobu ma fàttali ci tuuti ndax loolu taxu taxumaa jóg dafa am lu may leeral ak lu may yëgle ndax ginnaaw bi coow lu bari topp na ci ci réseaux sociaux yi ci ay ndaw yu jóg def seeni vidéo def seeni lu nekk jëm ci man mii ñu yaakaar ne yooyu noonu leen dana tax ma reculer wala ma dellu ginnaaw ci wax li ma bëgg a wax ak li ma annoncé ne téere bi bu ko laajee muy taqdiisul asxaas danaa ci dellusiwaat man ku may woo danga may woo xanaa ci maslaha walla ci njekk wala ci dal waaye ku xam Maxtaar Sarr ba muy Maxtaar Sarr ba léegi amul kenn ku ko mën a xoqatal wala mën ko reculeloo bu jëlee position amul laajal taalibe el cheikh yi ñoo leen dàqoon a saaga fuuf dàqoon leen a wax wax ju ñaaw fuuf dàqoon leen a def ay montage ci samay photo ak samay vidéo fuuf taxul benn yoon ma dellu ginnaaw la ma doon def bu dee benn la woon dama ko def mu nekk fukk laaj leen waa Faramareen yi xaw ma Faramareen lañ leen di wax gone Wally Seck yi laaj leen ñoo leen dàqoon a saaga fuuf dàqoon leen a def ay montage fuuf dàqoon leen a sos fuuf waaye taxul ma reculer benn yoon ku am position taxaw ne day xeexi franc di xeexi góor jigéen nga xam ne kuy saaga ñoo la ko dàq ak sos kooku noonu le du ay wahabi yi ñooy jóg naan kii xamul dara ki day nangam ak nangam ba tax kooku noonu le di leen faale ba tax lim bëgg a wax du ko wax lu leen neex bi yeboo ngeen jéem ko def waaye lenn bi il foog ngeen xam ko du ngeen am seen sëriñ bu tudd Ahmad Lo ngeen fonk ko naaw ko di wax cheikhana docteur xafidahullah di ko yëkkatee ka tong moom mi ngeen di yëkkatee ka tong mu am pouvoir bu tol ne bind téere téere bi mu ne mi ngi ko tuddee nitu sufi yanke yi ni ñuy yàllaalee seen sëriñ si noonu la tuddee téere bi ni ñuy sellalee seen sëriñ si noonu la tuddee téere bi am pouvoir bu tol ni moom Ahmad Lo attaqué sufiyanke yi ku ko neex mu jaar ci sa tur dem ci sa mbind falsifié sos jaxase ñëw ci man ci biir tasawuf kuréel bi mu bokk muy kuréelu tijaan yi tuddee ñu nit ñuy bokkaaleeg yàlla Cheikhana Ahmada Tijaani Ahmad loo am pouvoir bu toll ni ne bokkaalekatu yàlla la deretu yonent boobu sallallahu alayhi ak njaboot gi mu am yëpp ci àdduna bi rawatina ci senegal gii nga xam ne ñu bari tey ñu naan laa ne ay la taalibeem la ñooy seeni baay seeni ndey yëpp ay tiijaan lañu mu jël tariixa boobu noonu leen lu ko neex mu yàkk ko ko te dikkaguma ci dafa am lu ma ci junju keroog rek danaa ci dikk bu soobee yàlla aaxiru zaman bii ni ñëw na ngeen ko xaar danaa dikk ci taqdiisul asxaas ak ñi ma ciy àndal bu ci yàlla àndee ci tënk rek ma yemale ko foofu waaw léegi ki nga xam ne yow sa sëriñ am na sañ-sañu tudd sëriñu jàmbur yi ci téereem bind ko mbind maa ngi fi tasaaroo léegi kooku noonu le amal xew-xew ma amal ci jàngat ne leen yéen ñi doon bañ am sëriñ ndekete am ngeen sëriñ ndax sey xanaa mooy sëriñ yéen ñi doon wax ne lépp lu yenente bee ki saxaabaam defuloon yéen a koy wax ci seen làmmiñ te du xam-xam tegewul fenn du xam-xam mooy lu yenente bi defuloon ak i saxaabaam bidaa la man leen wax leen ma yenenti bekki saxaabaam fan la mos a woote daje bu mel nii ngeen jóg naan waaw xamul bidaa xamul lan mooy bidaa mais yéen yéen ñi xamul bidaa yéen a doon wax wax jooju noonu le suñu wootee màggal wala gàmm amul lu ngeen koy layalee lu dul ne yenent bi mosu koo def moo ki saxaabaam léegi ngeen taxaw ne da ngeen di layal loolu ginnaaw bi naan waaw xamul lan mooy bidaa ndax yenent bekki saxaabaam mosuñu koo def wala yeneen tibeeki saxaabaam déedéet dañ ne xamul bidaa ndax bu fekkoon ne xam na bidaa du ñëw di tëkkale benn woote bu nit woote ngir tuuma yuñ ko tuumaal di leeral yooyu noonu leen mu jël ko di ko dugal ci cadre bidaa loolu woote wuñ ko ngir jaamu yàlla déggal de wax ju garaaf ji wax ñu ne bis bi woote wuñ ko ci turu jaamu yàlla léegi turu bis bi wootewu leen ko ci turu jaamu yàlla mais naka la aw jullit mën a wootee woo ay mbokki jullit toog di jàng ay aaye alquran di ko firi pare ku nekk sant sa moroom ñaana leen ko ñaanalante ay jullit yu dajee ñu ne loolu noonu lee du daje boo xam ne ci turu diine la bu dul ci turu diine lu mu doon d'accord léegi ci du turu diine ngeen wax yenent bee ki saxaabaam fan lañ doon daje daje boo xam ne nii du diine moo tax ñu daje ko mais yéen dama leen a a dimbale moo tax ma ne leen attention dafa am baat boo xam ne yéen a ngi koy daw boobu ba léegi mooy baatu bidaa bu rafet ngeen ne bidaa bu rafet amul ci diini te dajee bu keroog bi dajee keroog bi bidaa bu rafet la ci diini amul dara lu ma ne kenn waru koo def mais dama delluwaat bal bi ci seen camp yi laa ko delloo ma ne leen yéen ñu doon euh, faral lépp lu ñu def ngeen ne yeneen ti beeki saxaabaam mosuñu koo def léegi layal leen yeneen ti beeki saxaabaam fan la mos a wootee bis góor ak jigéen génn góor ak ki jigéen ku ñu tuumaal ku ñu tëkku mu ne dafay setal boppam la lu muy dajale ay jaboru jàmbur ñu dajaloo ci benn place lan moo ci yilla bi mais amul problème charia lépp loo xam ne nii waxul ne dafa xaraam bunt bi ubbeeku na ŋàpp pour ñu mën ko def loolu la ñuy tuddee ci diine ñun bidaa bu rafet yéen ngeen taxaw ne bidaa bu rafet amul ci diine lépp loo xam ne yenent bee ki saxaabaam defuñu ko woon loolu noonu lépp bidaa la ma laaj leen yenent bee ki saxaabaam fu mu mës a wootee conférence de presse ngeen wax nu ko loolu mooy indi laaj yi may laaj mais man bidaa du yéen a ma koy jàngal man bi may jàng bidaa euh, dama xam yéen seen biddaa yi nga xam ne yéen a ngi koy wax fan ngeen nekkoon boobu noonu li man danaa nekk Sénégal gii nii yàlla dimbale ma Cheikh Tidiane Gaye nekk fi ma dund nag moom as diir mu bind ay téere ci téere yooyu benn ci biir téere yooyu laa yafqahuun ma jël téere boobu noonu la yër ko ci bopp ba ci genn di laajtewaat lan mooy biddaa ñu ma koy wax wala yéen ngeen ma koy wax wala bi ma gisee ku nekk naan waaw xamul bidaa euh, dem nañ sax bay def affaire théâtre yu xorom bañ jógee grande théâtre ba léegi dañuy théâtre ba léegi dañuy théâtre ndax démb laa xool gis oustaz soo Socé def benn waxtaan di wax ne ñiy wax ne bidaa xaw ma micro nangam loolu noonu la du bidaa ñu jël sama waxtaan ma defoon Walfadjri te posé woon leen ci ay question ñu ne Oustaz Taïb Socé mi ngi tontu Makhtar saar ma déglu ko di reetaan man dama mos a génnee sama làmmiñ ne micro bi daala fan laa ko mos a génnee mais yéen ñiy wax ne lu yonent bi defaloon moo ki saxabaam bi daala ci laa leen wax ne wax leen fan la yonent bi mos a conférence góor ak jigéen dajaloo ñu jël benn thème ne thème bi moom la ñuy waxtaan ñu ne muhaadara la tudd fu ko yonent bi mos a defee ki saxabaam loolaa leen laaj ngeen indi ma ci lay gannaaw gàmm da ngeen ne yeneen beeki saxaaba mosu koo def ak màggal yeneen beeki saxaaba mosu ko def man leen yéen conférence bii nga xam ne nii ñu ngi koy def ñun ci yéefar yi lañ ko jëlee conférence laa la wax ci yéefar yi lañ ko royee formule bi ñu koy defee góor ak jigéen dajaloo kenn ku nekk toog ñu teg ay seize am ku nekk modérateur kii yor micro central ñu pare ne thème sangam la ñuy waxtaanee présenté ke war a waxtaanee thème bi mu pare traité ko formule boobu ñu ngi ko jëlee ci yéefar yi mais dañu gis ne bidaa bu rafet la ñun julli ñi buñ ko mën a jëfandikoo ñu jël ko jëfandikoo ko ci beneen formule ñu jëfandikoo ko léegi ñun ñu nangu biddaa bu rafet amuñu problème mu conférence amuñu problème mu woote grand théâtre amuñu problème mu leneen mais yéen ñi nga xam ne lu waay defoon ngeen ne yeneen tibee ki saxaabaam mosu koo def moo tax question yu mel noonu la juddu yemu ma woon keroog rek ci Walfadjri bu ngeen di dagg vidéo da ngeen ci boole vidéo bu mat bi may wax la Oustaz Hassan euh, Oustaz Hassan di Oustaz Assane Diouf ne am baat yu mu tudd mën a déedéet baat yooyu sax boo ko tuddee léeg-léeg ñu am feneen foo xam ne danañ ko fa layalee moo tax baat yooyu tudd ma ko baatu émission laa jël ma teg ko fa ma ne émission bi ñuy def religieux ci turu diine di ko def semaine bu nekk wala nga koy def weer wu nekk benn bis lañ ko dàkkal utal ko heure formule boobu benn waxtu émission booy waxtaan trente minutes wala ngay waxtaan une heure de temps formule boobu noonu fan la am ci sunna yenent bi mos def moo ki saxaabaam ab technicien moo lay conditionné ne la ubbil wala tëjal formil boobu noonu le mais bidaa bu rafet la ñun ñu nangu bidaa bu rafet amuñ problème mu émission ñu nangu biddaa bu rafet mais yéen ñu ne bidaa bu rafet waru leen a def émission amul yéen ñu ne bidaa bu rafet amul waru leen a def émission wala bu ngeen koy lay rek da ngeen génn alquran ak sunna dem ci usul ak borom xam-xam yi wax nañu lii wax nañu lële ut seen i lay yoo xam ne nii c'est normal yàgg ngeen ko def lu leen arrangé ngeen bëgg ko layal donte da ngeen di génn al alquran ak sunna di ngeen ko génn dem layale ko firnde baa ngi ni bërki démb njaay bi bi seen sëriñu tariixa bi waxee li mu wax seen sëriñu tariixa bi di docteur Lo seen sëriñu tariixa bi li ngeen yor tariixa la wahabiya tariixa la tariixa la fii lañ ko invité mu dem ba bi Saoudite taalibe Mouhamad ibn Abdul Wahab yi présenté ko en tant que ku représenté wahabiya fii ci Sénégal mu jël thème di waxtaane Mouhamed Ibn Abdul Wahab kon moom mooy sëriñu wahab yi fii ci Sénégal taalibe Mouhamed Ibn Abdul Wahab ya nekk Arabie Saoudite ñoo ko présenté comme sëriñu wahab yi fii ci Sénégal mu toog di ko waxtaane ma dama ne li mu yor tariixa la a doon lànk di bañ di wax ne dafa xaraam képp ku jullee ci jumaa ju ñu suul nit sa julli wérut te danaa ci dikk am na vidéo yoo xam ne nii maa ngi koy defar danaa ko publier te firnde bi nag mooy taalibeem bu mag boobu di Omar Sangar Sall nga xam ne mu xaddam la ci seen tariixa bi nekk ci seex bu mag ci tariixa Muhammad tarix Ahmad Lo bi euh, du barke jéem moo njaay la dem ci benn dëkk fële bétante lañ koy wax xaw ma bétante dëkk boobu noonu li fekk fa ay nu néew yi ñu suul mu sulli ko ci jàkka taxaw ne alhamdulilah sabaab yi fi nekkoon waxtaan nañoo kilifa yi dëppoo nañ néew yi ñu suuloon fii ci jàkka ji jël nañ ko yóbbu ko ci armeel ya ndax bépp néew bu ñu suul ci jàkka ku jullee ci jàkka ji amoo julli mais du lool noonu le moo nekk ci seen biir téere yi Omar Sall nag loo mën loo ko mën a sikkal ku honnête la euh, damay waxal yàlla rek ku honnête la ci li mu gëm wahabiya gi moom xanaam xëy na jamono yi yow discours yi changé gannaaw sëriñ bi discours changé na hmm. waaye moom wahabiya cent pour cent ga seen discours ya lay jàllale rek ndax wahabiya cent pour cent ku jullee ci jàkka ju ñu suul waliyu amoo julli dem leen ci émission bu tudd nuur na ala dar bi bun base moo ko doon def mi ngi ci internet bi am na benn étudiant bu nekkoon ca Irak moo ko posé question laaj ko lan mooy àttey ku jullee ci jumaa ju ñu suul nit mu tontu ca ne muy jumaa wala jàkka ju suul nit képp ku fa julle amoo julli ndax yenent bi moo ne la laana allahu yahuda wa nasaara taqadu itaxadu qubuura ambiyaihim masajid yàlla rëbb na yahuudi ak nasaraan yi ndax dañoo jàppee seen bàmmeelu waliw yi def ko mu nekk jàkk ñun ñu yàgg leen wax ne leen déggu leen xaddis bi yahuudi ak nasaraan yi dañ daan dem di sujjootal seen bàmmeelu waliw yi tabax ko ba noppi di ko sujjootal di ko jaamu moo tax yenent bi rëbbu leen ñu yàgg a wax ne jàkka ju ñu suul nit ñun sufiyanke yi ku fa jullee sa julli wér na l'essentiel fa ngay jullee bul dàkk bàmmeelu waliyu ba ngir jublu caa julli bàmmeel ba nañ ko wërale dara bu mu am dara loo xam ne nii euh, euh, luñ ko ñàkk wërale la ngay gis jëmmu bàmmeel bi mais loolu na dañ ca bind ay téere maa ngi yor fii ci oto bi téere bii ixyaaul maqbuur lañ ko tuddee ixyaaul maqbuur min addilati jawaazi binaa il masaajidi ala al qubuur téere bii ba mu jeex dafay layal daganug jullee ci jàkka ju ñu suul nit heure buñ ko waxaan ngeen ñu mukk mënu la nekk di wax ne dafa xaraam ñu bari ci yéen duñ dem Touba ba julli ci jumaa ja duñ dem Tiwaawan ba julli ci jumaa ja léegi barki dem boo njaay seen sëriñ bi taxaw ne julli na jumaa Touba ngeen nekk fi génn alquran génn sunna di ko layalee ay boromi xam-xam dañ cay weranti maa ngi leen di déglu boobu ba léegi maa ngi ne tekk maa ngi woon ci tukki maa ngi connexion di déglu ba ma ñibbiseeg léegi tamit maa ci internet bi di déglu su taxawoon grand théâtre ne loolu dafa xaraam ñun ñu taxaw ne attention li ngeen di wax xaraamul indi texte da ngeen dal ci suñu kaw dugg ci hadis direct ngeen di dem du ngeen jëli benn waxu boroomi xam-xam mais yëfu sëriñ sopp daganal léegi yéen seen sëriñ bi lu mu def ngeen ne baax na yéen lu ngeen bëgg baaxal baaxal ko keneen lu mu bëgg def ngeen ne ko dafa xaraam jël julli ñi génne leen ci lislaam jàppe ñu ay nitu bidaa ba noppi ne loolu kenn du ko wax moo ngeen jug def seen benn lobbying naan dangeen may jéem a diaboliser ak Makhtar Sarr mi ku nekk di attaqué mbocoroo ci bu jug dal ci sama kaw teg ne loolu mooy tax ma reculer yéen xamu leen ma sax xamu leen ma bidaa du yéen a ma koy jàngal du yéen a koy jàngale ci Sénégal ndax yéen xamu leen luy bidaa luy bidaa xamu leen ko koo xam ne njàngaleem bidaa balaa daanu mu saaga saxaaba saaga laa wax te saaga saxaaba weesuwul ku toll ne Seydina Omar ibnul Xataab wax ba noppi nga ne ko li wax amul loolu la ñuy tuddee saaga nit wax ba noppi nga nekk li nga wax amul contraire li nga wax amul mooy ñu ba du ma tudd baat bi ñu bi ñu war a tudd loolu nu mu tudd Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu pour wax la ne ñoom buñ nangu woon ne bidaa bu rafet am na problème doo am mais dañu ne bidaa bu rafet amul ñun ñu yàgg leen a wax ne bidaa bu rafet am na te incha allahu taala danaa defaat beneen vidéo balaa axiru zaman ci bidaa rek laay waxtaan ci bidaa képp laay waxtaan bi ma gisee mbocoroo ci kenn ku nekk yëkkati kàddoom di wax ci laa dem génne émission boo xam ne ci laa tontu woon Omar dem leen ci aaxiru zamaan yi ma defoon ci moom bi nga xam ne ci gàmmu laay wax njeexitu aaxiru zamaan bi yëpp dugal naa ko ci chaîne bi mi ngi sama page Facebook njeexit li lépp ci lan laay wax du lenn lu dul bidaa di tontu Omar di tontu Mourtada Gueye di tontu imam euh, Babacar sàll ci li ñuy wax ne bidaa mooy lépp lu yeneen bee ki saxaabaam defuloon ma tontu leen indi leen lan mooy bidaa wan leen nekkul lay ci diine nga ne nangam yeneen bi defu ko woon wala saxaaba yi defuñ ko woon tontu leen ci ba tontu leen ci li ngeen di wax ne Seydina Omar ibnul Xataab li mu wax ne ni'matil bidaatu haadihi ni'matil bidaatu haadihi benn riwaaya la bu imaam Malik génnee ci Muwatta Buxaari génnee neemal bidaatu haadihi ngeen ne loolu Seydina Omar wax tëddeewul noonu ndax Omar lim ne la du bidaa xoolal ñàkk teggin googu noonu li ab booxee bii rek moo ko ñeme saxaa ba wax ba noppi nga ne ko lim wax du bidaa d'accord nga ne sax léegi bidaa la mais bidaa ci luxa la lan mooy bidaa ci luxa mooy loo xam ne nii yaa ko njëkk def loolu la ñuy tuddee bidaa ci luxa su dee yow yaa njëkk defar oto ñu ne la kat indi nga mbir moo xam ne yow yaa ko def loolu la ñuy tuddee bidaa ci luxa bidaa ci charia mooy lan mooy li nga def loo xam ne nii yenent bi defu ko alxuraan saxalu ko loolu la ñuy tuddee bidaa ci charia mu séddale ko ñaar séddale boobu ngeen di bañ yéen wahabiye yi te boroom xam-xam yi mag yëpp nangu séddale bidaa imaamu Shafii ca ñooñu la bokk imaamu Nawawi ca ñooñu la bokk nangu na séddale bidaa ak yeneen i borom xam-xam incha allahu taala danaa ci ñëw émission spéciale ne bidaa dana séddale ci ñaar te imaamu Shafii bi muy séddale bidaa mi ngi layoo asaru Seydina Omar ibnul Xataab bi lan la Seydina Omar ibnul Xataab wax dafa dugg ci jàkka ji gis jullit ñi kenn ku nekk mi ngi ber sijaadaam taxaw di julli mu ne image bi rafetul ci lislaam wax Ubay ibnul Kaab jiiteel Ubay ibnul Kaab daal di jiite sàppe yi jekk lool njàng alxuraan mi rafet lool ñu pare mu ne ndaw bidaa bu rafet ndaw bidaa bu rafet ngeen ne noo Omar li mu wax ne bidaa la du bidaa xanaa bidaa ci luxa waaye li muy wax yenent bi mos na koo def sallallahu alayhi wa sallam léegi bidaa ci luxa mooy loo xam ne kenn mosu koo def léegi ngeen ne waxu Omar ji mooy bidaa ci luxa te yeneen ko jëlee ci benn fenn fu ko Ibnu Taymiya bind ci mbindam moo wax ne loolu Omar def bidaa la ci luxa te ñaata boromi xam-xam ñoo tontu waxu ibnu taymiya jooju nañ njuumte la du jeex ku honnête di gëstu ci bidaa da nga gis ne liñ wax ne bidaa ci luxa boroom xam-xam yi ko njëkkoon a wax dañoo juum ndax bidaa ci luxa mooy loo xam ne yaa ko njëkk a def kenn jiituwu la ci te Omar li mu def yenent bi mos naa def lu ni mel sallallahu alayhi wa mos na jiite ci jàkkam ja bi mu jiite ci jàkkam ji ba sëlmal euh, naafila weeru koor benn fan ñaari fan ñett mu gis mbooloo mi tàmbalee bari mu arrêté ko defatu ko xëy benn fajar na leen biig lu tax gisuleen ma mooy dama doon ragal ma génn jiite leen yàlla farataal ko ngeen di yokkat mu leen loolu moo tax gisu leen ma ma ñëw jiite leen moom sallallahu alayhi ci la bàyyi naafi la ba ba muy génn àdduna naafi la ci weeru koor ci jàkka amul ku ne da ngay ñëw rek naafi la ñibbi premier xalifaam di Seydina Abubakar ni Siddiq ñëw na nekk xalifa ba xilaafaam jeex amul dajaloo ci jàkk weeru koor dinaa fi la ba Seydina Omar moo ñëw dekkalaat ko Yonent bi sallallahu alayhi fukki rakka ak ñett mosu koo weesu ci weeru koor ak bu dul weeru ci yenn riwaay yi yenn yi ne fukk ak benn mosul weesu lool noonu le Seydina Omar ñëw yokku rakka yi yóbbu ko ñaar fukki rakka ci benn riwaaya beneen riwaaya nag ñaar fukk ak benn beneen riwaaya nag ñaar fukk ak ñett bu ci nekk riwaaya la mu yokku rakka yi jëmmi yokk googu mu yokk moo tax mu tuddee ko bidaa bu rafet ndax bidaa mooy loo xam ne nii li nga def am na lu fuñ ko mën a delloo ci diine waaye formule bi am na lu ci soppeeku mi ngi mel ne li ngeen layalee daje grand théâtre bi na yeneen ci bi daan na toog moom yàgg mu woote ñëpp ñëw wuy si ko mu taxaw wax ak ña nga xam ne ñoo ko woo mais yeneen bi bu daan woote sallallahu alayhi wa sallam day ñëw woote moom sallallahu alayhi wa sallam góor ak jigéen ñëpp génn ñëw ci seeni kër ñëw taxaw mu leen di wax sama maam Euh, Abdul Muttalib ba fi gën wala sama baay Abdallah moo fi gën nangam ji euh, diw sàngam mii toog ma ngi ko donnee ca maamam maamam donnee ko ci sëriñ diw ndax yenent bi loolu la daan dajale nit ñi di leen ko wax mais jëmmi gannaaw yenent bi mos na am occasion woo nit ñi wax ak ñoom kon formule bi mi ngi fi woon kon neneen noo ko mën a soppee bidaa lay tudd mais bidaa bu rafet la loolu la ñuy wax bidaa bu rafet ngeen ne bidaa bu rafet amul ci diini loolu danañ ci dikkaat vidéo bi loolu tax koo jóg dama am nag lu ma ciy annoncé léegi ñu ne noo balaa mbir mën a tudd daal dañ koy def sanawiya maanaam dañ koy def at mu nekk mu dellu si ma posé question ngeen honnête te tontu ma ci wax leen ma ci sunna wala ci alquranul karim fan la yenent bi sallallahu alayhi wa wala benn saxaaba benn saxaaba ma yaatal ko wala fenn ci alquran fu nu waxee ne nga woote benn xew-xew at mi dellu si nga wootewaat ko même jour bidaa la maa ngi lancé kii konk te bu leen ko wër-wërloo nag jarul ngeen di génnaat di wax naan non dégg nañ li mu wax lii ak lële question bii rek moom moo mën naa am génne leen ko ci vidéo bi dong doy na mooy yéen ñiy wax ni balaa woote di mën a nekk bidaa mooy nga jublu ci jaamu yàlla loolu moom euh, mbir la muy këpp ci seen kaw kuy woote xew-xewu aada moom nekk ay jullit loolu moom jël leen ngeen yóbbu fële man ñaanuma yàlla di woote xew-xew aada man woote bu may woote dama ciy jublu jaamu yàlla ñaan yàlla moo fay ma ci qul inna solaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin ñaanuma yàlla dajale ñaari nit lu dul ngir yàlla moo tax ma dajale leen seenu yàlla fay ma ci mais yéen dong nga ñeme dajale nit ne noo seenu wuñ ci dara dañ leen dajale noonu kese pour waxtaan ñu dem ñibbi léegi nag na ngeen am mat gu toll ne ngeen tontu ma ci ne li tax mbir di nekk bidaa woote mooy nga fas yéene déwén nga defaat ko même jour wax leen ma ban xadiis wala ban aaya moone ku woote bis fas yéene déwén nga woote waat ko dafay nekk bidaa wax leen ma ko nangeen ko génne de xadiis bi génn wala aaya bi na génn woote bis sanawiya xadiis bi dane woote bis sanawiya bidaa la wala alquran ne bidaa la loolu mooy tax mu doon bidaa wax leen ma ko jarul wër-wër loo su ko defee kon gis nga fi mënu leen fee xoqatal kenn ci ay wax tuuti ngeen ci sax mënu leen ak xas nit ñi man ngeen jàppee ma mushrik saaga samay sëriñ ne dañuy fenn la Ahmad Lo wax ci téeréem taan la wax ay duur tiijaan yi dañuy duur li ñu wax du dëgg léegi man ma muñ saaga ngeen saaga ko samay sëriñ ba noppi man ma mën a toog ñàkk fayda man ngeen toog man di ma saaga ma di ko muñ wala ma toog di leen déglu wala ñu leen ciy seetaan fitna buy tàkk ci àdduna bi yëpp du lu mel ni moo ko taal moo tax Arabie Saoudite dina leen di génnee ci biti Mohammed ibn Salman ca biti la leen génnee tey ñoom wahabiye yii bu muy lancé projet noyemam boobu nga xam ne def na ci cinq cent milliards dollars di projet caaxaan dara taxu koo jug projet boobu lu dul fo tasaare ay boîte ci biir Euh, ah, xaramayni sharifayni ak bërëbu fowukaay doo mos a dégg ñu dénoncé waa Arabie Saoudi doo ko mos a dégg seen yebaate gi ñu yebaate yëpp mën a tudd Cheikh Ahmada Tidiane mën a tudd Cheikh Abdoul Qadir Jeylaan mën a tudd Serigne Touba mën a tudd baay Niass mën a tudd seexal Al Hadj Malick ku ne ñu mën ko tudd mën nañ dañ koy dañuy dénoncé ay mbir ñu doo leen mos dégg ñu dénoncé Mouhamed Ibn Salman wala Bayam Salman doo ko mos a dégg te bu dee dénoncé rek ñoom ngeen war a dénoncé ñu ngi woote ay concert Arabie Saoudi ay bërëb yoo xam ne nii ngir Zeu dong ñoo tax ñu tabax ko te xaalisu jullit ñi la ñu ko tabaxee lu bon lu nekk ñi ngi koy installé tey Arabie Saoudi mais ñooñu tey di installé lu bon loolu ñoo ne leen ca biti ndax seen xalaat bi moo tax jubóowuñu ak benn jullit ci àdduna bi ndax ñun ñoo jug di takfiiral jullit ñi ba tax ñu nekk in euh, noon mbooleem jullit ñi Mouhamadou Salman ne loolu dafay dakk jël nañ ci matuwaay dañuy dog li nga xam ne mooy buum gi ñu lëkkaleeg ñi nga xam ne ñooy wahabiya yi te dara indiwu ko lu dul lu mel nii rek mooy ku jug di rappi rappi yow sa kilifa nga jël sang ba mu set solo yére teg fële tuur ko parfum ne kenn bum ko tudd kilifa jàmbur yi heure bu la neexee nga jël yàppam di ko di ko lekk heure bu la ne yaa ngi koy jëw di ko sosal di kàcc di nar di teg léegi nag ngeen ne kenn du ko tudd yéenay ñan ñu baal ma ci waxin wi bi ma nekkee euh, fële ca. Euh, fees dama def video bu dal poser ay question pour waxtaan mais ma pare ba gis réaction yi kenn ku nekk jug di wàcce ca ci jàngul ferul ijji nangam waaw man jàng soxlawu ma yéen ngeen seedal ma ndax jàng naam jàngu ma man feruma ijji d'accord mais seen sëriñ ci lu ñu tabax ma taj ko moom lu ñu tabax rek ma taj ko lu ñu tabax ma taj ko su ko defee ne dinañ ci yóbbaale ñenn ñoo xam ne xamuñu xëcc leen te lu mel noonu la ñuy def njaxas kii nii la mel kii nële dem nañ sax ba naan noonu ibaadu yi la fa laay daanalee vidéo bi gis nga man ñii di ma saaga bàyyiwuñ ibaadu yi ibaadu yi yàgg naa leen ko wax heure bu ma waxee waxee bi nit jël wax ji ne ibaadu ma ne ko non attention ibaadu yi ma xam Sénégal nit ñu baax lañ nit ñu yaru jamono yii docteur Abdoulahi laam mooy seen amir muy kilifa gu ma naw ku yaru ku baax ku respecté mboolem kilifa yi màggal. jamaatu Ibadu Rahman ña nga fa yóbbu seen antenne médicale di jàppale ñi nga xam ne ñoo ñëw di màggal si gàmmu Tiwaawan ña nga fa yóbbu seen antenne médicale di jàppale ñi gàmmu si ñaata yoon la xale yii nekk ci réseaux sociaux yi di saaga docteur Abdoulaye Lam muy jamaatu Ibadu Rahman Omar Sall vidéo bi mu def mu tasaaroo fan yi ma génnewaat ko ñim naan ëhlu sunna lanu di jaxasoog ëhlu bidaay di maslaa ñoom naa fekk la ñan lay waxal lu dul jamaatu Ibadu Rahman ñoom wahabiye yii ci Sénégal fu ñu toll ñoo ñu ngi leen di attaqué ndax dañu dañuy jëflanteeg sufiyanke yi sufiyanke yi ñooy nitu bidaa yi te waruñoo jëflanteeg ñoom mais aw ma problème ak ibaadu samay xarit lañu ay nit ñu baax dama ne képp ku gëmul sama sëriñ mën naa koo supporter ndax maa ngi supporter ku gëmul sama yeneen kon aw ma problème ku gëm sama sëriñ ak ku ko gëmul man ku ku ma xam-xam ne euh, du fu ma toog naan maa ngi bokk ci tarixa tijaan nit déglu na ma at yu baree bari ne xaw ma ci man tarixa nga bokk mu ne ko waaw ndax sama sëriñ loolu la ma jàngal ki may roy ci moom muy Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh sama sëriñ sama soppe sama référence ci woote ci yàlla diine ji la taxawoon di ko wooteel donte moo nekkoon xalifa Cheikh Ahmada Tidiane ci jamonoom mais fu muy yëkkati kàddoom diine ko tax a jug ak lu ñàkk réew mi man ci loolu laay jéem a nekk aw ma problème benn kuréel ci réew mi ku woote ma dem wuy ji la te bu ma neexoon ma yem fi nga xam ne moom laa bokk 99 laa jël tarixa Tidiane am naa ci ijaasa mën na yu jeex mën naa cee tudd ñaar sëriñ Maodo Si baax bu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ijaasaam maa ngi ko yor ci laa fas yéene ku may jox wérdu Tijaan ci ijaasa boobu laa koy joxe. Cheikh Ahmad Tijaan Ba xalifa na Gunaas daf ma bindal ijaasa boole ci dollil ma ci mën naa def nit muqaddam yemuma rek ci mën a jox nit wérdu waaye mën naa ko def muqaddam mais taxaw ma di ko campagne kenn naan kaay ma jox la wérdu wala bàyyi leen seen kuréel ñëw ci tariqa Tijaan defuma ko. te mënoon naa ko def am naa ci liberté mais dama gëm ne jullit laa war a doon bu ubbeeku jëm ci julli ñëpp amu problème masa Masamba ak ma dem mais ku am problème ak man ma am problème ak yow akilu lil xilli kama kaala lii ala wafa il baxli aw kayli ala wafa il kayli aw baxsi akilu lil xilli kama kaala lii ala il kayli aw baxsi ku ne la yéefar nga loo koy wax du ma ne la yéefar nga waaye naa taxaw ne la du ma yéefar soo ne ma musirik nga daa taxaw ne la du ma musirik doo ne ma nitu bi daal dinaa taxaw ne la du ma nitu bi daal coow li yëpp contre attaque la mais du attaque ñun juguñu di attaqué kenn mais ku jug nañu yéen nit bi ñeen ëllu tasawuf nitu bidaa ngeen ñu ne la ci àll kutiya loolu dong moo indi wax ji mën nga nekk ci réew mi am droit wu saaga sëriñu jàmbari heure bu leen neexee ci réseaux sociaux yi amoo xam ne waxuma saaga sax li may tuddee saaga lu bari mooy naan fen ak duur ak yu mel noonu mais am na koo xam ne ay saaga ndey lay jëmale ci sëriñu jàmbur yi ñu ngi yor audio yi ci kilifa yi ci réew mi di ay ndaw nekk ci réseau sociaux yi mais yu ci bari ñu ngi koy dégg muñ ko bés sunu xol dégg yéen ngeen jug am seen sëriñ bu wootee ngeen wuy si ko suy wax ngeen di daanu suy romb ngeen di xataraayu bu waxee ngeen ne yàlla ko yàlla sàmm di déplacé wu raison ba raison di ko wuy si réew ba réew di ko wuy si ngeen baal ma léegi loolu noonu yëpp ñu nangul leen ko yéen ngeen toog ku def lu mel noonu defal ko sëriñam ngeen taxaw ne warul la nekk ci réew mi fa ngeen toog di jam nit ñi ba noppi ne kenn du ko tudd loolu noonu la ba kañ mais loolu du fi jàll du fi jàll te bu yowoo ngeen yem ay monté ay vidéo ay wax ay kasaw kasaw di teg yooyu yëngalu ma te incha allahu taala taqdis bi euh, danañ ci coof rek coof ci aaxiru bii ni ñëw téere bi wax naa coow li li ko mën a jeexal borom a ko mën a jeexal te fas yéene mu jeex ndax li ma dugal keroog pour ma def vidéo boobu noonu le bokk na ci mooy woote bi ñu wuy si la say taalibe wuy si la te nga ko daan bañal ñenn ñi ñaareel bi mooy li nga wax ne taqdis ñi ci doon wax dañu lay sosal mais li ñuy wax nekku ci ma taxaw ne la mi ngi ci téere bi bi muy jeex moo résumé ne téere bi man maa ne man Ahmed Lo xaraka suufiya li ko tax a jug mooy dagg buum yi ñu takkee lislaam toj miir bi ñu tabaxee lislaam lii lan moo ko gën a doon accusation bu grave ne tasawuf li ko tax a jug mooy toj miiru lislaam ak dagg buum yi ñu ko takkee woon mais loolu noonu la nit dana ko wax ak yeneen yu mel noonu dem ba ci tarixa tijaan mu ne ku ci tënku ko nga ko war a bàyyi ci saasi nga war cee génn mu wax ko ci biir téeréem léegi lii ngeen ne noo téere bi kenn du ci wax dara nekku ci moo wax muy jimaamu naan téere bi ñu ci bari munuñ ko lii rek amuñ niveau dégguñ ko lu kenn xamul ban téere lañ mënta liir Cheikh Tidiane gay téere bi mu la tontoo arab yi ci nekk xaajaat bi dafa nekk ci sa téere yi tontu la dammat sa téere bi ba corriger la ci faute grammaire yi nga xam ne def nga ko ci sa biir téere Cheikh Tidiane gay bee gën a jafee jàng foofu sa téere bi te loolu na lañu am amaane ilmiya jël ñaari téere comparé danañ xam ban luxa moo ci gën a diis gis nga gis nga fii koo fi joxañ rek mu joxañ la koo fi xulli mu xulli la gënu leen ñoo dëkk ci réew mi ëpp leen ñu fi tus li ngeen gëm da ngeen koy gëm ñu respectel leen ko li ñu gëm ñu gëm ko ngeen respectel na ko ñu bokk nekk ci jàmm waaye doonoo jullit may jullit sa sëriñ danaa ko saaga doo wax dara sama sëriñ moo dul mën a jàll te du ma sa jàll nag incha allah su ko defee maa ngi jéggalu dama doon def vidéo bi rek pour indi loolu noonu leeral incha allahu danaa ñëwaat ci beneen vidéo ci bidaa bu soobee yàlla danaa ci dikkaat bu ci yàlla andi aaxiru zaman bi tamit bu soobee yàlla danañ ci dikk ñëw ci téere bi téere fitne bi téere sos bi waaw téere bi nga xam ne falsifié rek moo ci nekk ba noppi ngeen ne kenn du ko tudd yenee ñan maa ngi jéggalu bu baax ñi nga xam ne comprendre ñu bari mais ñi xam xam nañu yu mel nii sax ñaareel duma ciy dugg ci ay mbir waaye nag wala fay wax ne du la topp koo gis fa ngeen jëm a soriwul du ma la topp foo gis goo gis fa ngeen jëm a soriwul yal nañu yàlla defal sutura defal leen ko di balum mbokk eh, àq mbokk yëpp waaw ndax fitna fitna nit ñoo xam ne nii ku leen neex ñu attaqué bàyyiwuñu wuñu ma xoolal sëñ kër Mbuub nit ku baax ku yiw ku sell kooku noonu li xajoo ñépp xew-xew bi amul mu def lu dul jàngat di raisonné ñaari kaay yi fa mu bokk ak ñi nga xam ne nii ñoom lay jëflanteel aw ni def lay attaqué ko ci da ngaa jéng da jéng ku wax loo xam ne bëgguñ ko dégg rek ñu dal ci sa kaw bàyyiwuñ Alioune Badara ndaw borom xam-xam bu baax bu yaru bu yiw boobu jàngalekat bu mag boobu noonu li bàyyiwuñu ko ñu ngi koy attaqué ndax lan imam Alioune Badara ndaw day wax ni nañu def attention ndax am na ñoo xam ne dañuy dugg nekk ci ñaari kuréel yi fu nekk di jaxase ñu defi émission dal ci kawam kenn lañ dul bàyyi ba ci sama sëriñ ba góor gi Abdoul Aziz Touré benn émission bo benn gàmm gu am mu jël li nga xam ne moom mooy euh, gàmm waxtaan ca am ndaw yu nekk ci réseaux sociaux yi attaqué ko ci lim wax ci gàmm kenn la ñu bàyyiwul kenn yow daal nañ la gis nga bokk ci yenn kuréel nañ daal ci sa kaw sama jigéen bu baax ne soxna Zeynab Fall kàddu gu ñaaw la comme genn jigéen joo wax joo xam ne ne ci seen kuréelu Euh, kuréelu wahabiye yi lañ ko tàggatee gis ko mu yor kurusam rek mu wax ko wax ju bon wax joo xam ne nii fu mu toll danaan wax ne am na ku mu wax kàddu gu naqari waaye baal naa ko te dara indiwu ko dul yor na kurusam di def li nga xam ne nii kuréel ba nga mu jël seen wirdu moom la ñuy def mu respecté ko di ko def mu attake ko ngir loolu waaw ñu mel nii nga xam ne nii kenn muccul ci ñoom kenn muccul ci ñoom man danaa mucc ci ñoom ala ñu yàlla jéggal mu mel ne euh, mi ngi gudd li ci des nañ ko bàyyi incha allah ba yeneen i vidéo bu soobee yàlla waaye la ma jeexale woon keroog rek laay jeexale wa in ta'udu na'ud man ku ma xam-xam ni <laughs> duma ma reculer du dellu li may wax xam naa ko yor naay archive yor naay téere te mm, ñàkkuma mën a liir nag déedéet te xam naa lu bari denc naa lu bari tamit waaw te kenn du ma reculer kenn du ma wax looloo xam ne nii bëgguma ko wax kenn du ma manipuler kenn duma ma tàccu def mu mel ne mbërum làmb wala benn footballeur di ma supporter pour ma dugg ci yenn yi déedéet waaye lu ma engagé kenn du ma ci reculer loo pour loolu muy leer ful la mooy jaay Dakar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.